Euh, di la ziyaar itam di jiital ci nuyo bi euh, alxalifatul am seydi abu bakar si muhammadul mansuur di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér di ko ñaanal mbooleemi rakkam ci naal yi ñu naal waaw ku ne xam na tey 14 septembre ci la fi Cheikh Alhaj Abdoul Aziz bàyyee ko woon euh, wuyu ji boromam mu mu doon vingt ans ci ren ren itam mu yem bokk Seydi Aboubacar di relancer achèvement liggéeyu jumaa Tiwaawan ji mu nar ko def bis ni tey ñu ko ci ñaanal yàlla ak i rakkam ba lépp lu nu sumb yàlla def ci jàmm ak barke ba mu yegg ñu ubbeeku ak seen sago ak wér ndax ku ne xam na ni kër gi këru ndigal la daanaka lii sax ñuy def euh, laajuñu ci ndigal ndax daf ñu bett rek ñu koy jéggalu itam di nuyu sunu sëriñ suñu soppe suñu baay Cheikh El Hadji Malick Sy Maodo ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér ak jam mbooleemu rakkam yépp ñu mu am ci ginnaaw yàlla sàmm leen aar leen waaw Cheikh El Aziz ku ne xam na ni dundam gi yëpp ñi ko fekkee ak ñi ko fekkewul xam nañ ni dundam gi yëpp ci charia la ko teg ak sunna am na luñ ko doon woowee muy xalifa waaye doxewu ko waxewu ko daf ko daf ko jëfee ndax eh, képp ku nuy sàmmuloo rekk daañu la laaj lañ la sàmmloo woon noo ko sàmmee ndax sunu boroom mi ngi wax ci yow ma nad'u kullu unaasin bi yi ndax bés penc yàlla buy laaj day laaj groupe ak seen njiit teg seen njiit laaj leen ku ne ñii naka leen naka nga leen sàmmee woon moom nag ci responsabilité boobu mu amee woon ginnaaw ba mu ci jiitalee téere yàlla bi teg ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ak njàngale Seydi Ahmed Tijaani ak ci baayam mu wàcce woon boppam lool ba mën a ki nga xamante ni mu ngi jaay gerte ci mbedd mi mën a jëriñoo ci moom waaye ki nga xamante ni bureaucrate la itam mën a jëriñoo ci moom nga xam ni du ci am benn xàjj ak seen ndax ñépp daañu ko mën a roy ndax di ngay seetlu ba ci jaaykat yi moo xam yére lañuy jaay walla lu mu mën a doon Euh, yére bu nekk ak que ñuy couche ba ñuy viser pour am seen clientèle moom nag dafa fexe woon ba nooyal boppam ba wàcc ndax ku wàcce rek yàlla yëkkati la ba wàcc ba nga xam ni ñépp mën nañ jëriñoo ci moom mu mu wane ko ci ay exemple exemple yu bari maanaa dégg nañ ci doomam Seydi Aboubacar Abdoul Aziz nee mës na ko toog ak moom laaj ko ne ko sëriñ bay xar mële lan lay def mu ne ko papa day duññi mu ne ko luy duññi mu ne ko xar bu lekkee ngooñ bu yàggee da koy génnewaat di ko ruminer mu ne ko ah, ndegam xar moo amul benn responsabilité mooy def li ngir tànn yi koy lor mu génne ko yi ko dul lor mu dugal ci moom massa ñun nit mu ne ko yëg nga ni man lu luñ may woowee mu di xalifa ginaar gu tawat tuyaawan man la ko sunu borom di laaj kon kooku sens de la responsabilité waaw moom dafa fexe woon incarné lépp loo xam ni ay valeur yoo xam ni ci diine la ak ci àdduna si ngay gis ni dafa fexe ba setal wecc boppam wecc ci lépp loo xamante ni dina loor doomi aadama ba nga xamante ni bu bëggee joxe message sax loolu dina ñëw nekk barrière ci kanamam ba nit ñi duñ ko dégg maana dafa fexe nekk góor gu set wicc waaw di dégg Cheikh El Hadji di ko wax ci wayam ji fala budda min shakwa ala himmati fajhal waaye nag nga def ma li ansirtu xurran xaalisan kulla wijhati ma nekk góor gu set wicc ci ci ci plan yëpp ci côté yëpp set ci guerre set ci moo xam corruption la moo xam jigéen la moo xam daraja bakken lépp lu mu mën a doon ci nga xamante ni ci la doon mën a toog woote daa di ne wax ak gouvernement wax ak député wax ak nit ñi te du ci doo ci gis dara loo xamante ni day dellu ci moom walla mu dellu ci njabootam lépp rekk ngir nit ñi waaye kooku am na noo xam ne bu ko defoon ndax léegi léeg nit ñi duñu duñu déglu la ngay wax waaye kay wax lañuy déglu ndax légitime na wala légitimul waaye moom nag dafa fexoon ba légitimité boobu mu mu teel mu am ko ndax ñu ngi wax quarante ans zéro faute waaye man dama naan quatre-vingt-treize ans zéro faute ndax am na loo xam ni lu jiitu quarante yi bu demee woon noonu quarante yi du demee ndax nit dafay am ay ay prérequis ndax euh, sëriñ Babacar Sy radiallahu taala anhu nee na dafa dem fekk Cheikh El Hadji leewu maam Abdou mu nekk tuut tànk nee mu dégg Cheikh El Hadji di ko woyal di ko di nax dana ko yaa xuddati fi shiddati in lam takun anta faban waaw mu ne ko nag yunqiduni min ar-rada yaa saaxibal fixlil xasan ci koo xam ni defagul dara nga ni ko yaa saaxibal fixlil xasan xam nga kooku eh, inchaiya la waaye xabariya la mu loo xam dana ñëwi ci ngay gis la différence bi entre ndogal yi ak li nga xam ni nit ki loxoom a ngi ci biir ndax ku toll ni Cheikh Alhaji Malick bu téye eh, koo xam ni ndaw la di ko wax di ko woyal loolu mooy am na lu mu yëg ni yoon bii bu fa jaaree dana ko matal yaa saaxibal fexlil xasan yow borom jëf yu rafet yi ba pare naan ko yaa wuddati yow sama ndëgërluwaay fii shiddat yi ci ay tartar in lam takkun anta fa man yow yii boo ko deful ana kan moo koy defi ci xam nga kooku bu teggi woon yoon bi rek légitimité boobu day manqué waaye dafa fexe ba ba tegu ci ba sëriñ bi ko doon yar muy sëriñ Hadi nga xam ni Cheikh El moo ko yar kooku wëlbatiku di ko way te sëriñ Hadi fi mu toll woon ci yàlla tollu woon fa ci cër du way kenn ngir ba kenn waaw sëtum demba bun na del xenc sunna lu dul sunna bon na lu bon bul ca jëm waaw ba pare ne ko diine ji sa tool bàyyee del bay te wattuy golo maanaam xàllal nañ la yoon fu la neex jaaral ci kaw nag yële nga amoon comme prérequis nga mëtal ko te mëtal la ko moo tax euh, valeur yooyu mu doon incarné moo xam temporel wala spirituel bu fekkee spiritu wax naa ci temporel bi léegi bu fekkee spirituel bi euh, lépp li lépp li jullit di def daan na ko ànd ak jullit ñi di def daan na dem wasifa ci jàkka ji di julli waxtu juróom ci jàkka ji lu mu tële tële moo tax fépp fu mu mësa ne rek am na jàkk moo xam Gueule Tapée moo xam ay numadi moo xam saaw lu mu mage mage dem na ba ci mujj dundam euh, dañ ko daan téye mu dugg ci oto bi dem rue Blanchot ñuy julli juma mu gaare toog ci biir oto bi ngir teewee juma bi te boobu juma wàcc na ko mënatul waaye rek ngir sàmmoo yi nga xamante ni ba pare wan nit ñi ne nit du weesu nit ndax cër bu la yàlla may munoo weesu nit nit rek ngay doon ndax tax yàlla rek mooy yàlla waaw yàlla rek mooy yàlla te leneen loo fi am it yàlla moo la ko may te mu ko jaarale ci sang bi sallallahu alayhi te sang bi ku ne xam na ni miiraaj na def ascension dee yóg yàlla yàlla woo ko ca asamaan waaye iblis ne comme kii yéeg na ca asamaan yi ah, bu subaa danaa ko mën a yàqal ngir jaare ko ci bakkenam ngir rëy ak yooyu waaye mu xëy gis ko mu war mbaam mu ne ah kon kii kenn mënul ci moom dara ndax ku gis li nga gis wàcc gën a woyof ñëpp loolu nag la fexe def muy dundam yépp ba ñun yi ñu tàmm di sol mu yay basin wak yooyu euh, occasionnellement la ko daan sol yu woyof xam lu ndax dégg naa ci euh, doomam mu ne dafa amoon benn Citroën moo xam oto la nee na Citroën bi panne yóbbu ko garage mu yàgg fa lool nee na bi mu ñëwee ne ko mécanicien bi nee na Citroën bi trois cent mille francs wala deux cent mille francs moo koy defar nee na mu xaacu ne ko Alpha bu ma jëlee trois cent mille di ko def ci oto bàyyi fi jàmm yàlla yi di xiif lu may wax yàlla bàyyi leen ko foofu ba fu mu defaroo baax na nit a ñëw rek fekk ci garage bi oto bi ne waa ku moom oto bi ñu ne ko El Hadj Aziz mu ñu expliqué ko mu ne mu ne maa ko fay defar leen ko yóbbul ko kon xam nga kooku ak ni mu toll waaye di bàyyi xel nit ñi yooyu yëpp ci li yàlla dénkaane la bokk ndax innamal mu'minuuna iqwa fa bay na axaway bu ngeen ko defee nag ngeen rataxal te rafetal te rafetal bi du dara lu dul rekk man la ma gënle ma jox la ko yow la nga gënle nga jox ma ko man nag bu ma manqué ba jël samay manqué manqué di la ko sotti yow amal ma tug bañ ma ko delloo te xam ni bés boobu man la yàlla sédd manqué waaye du yow ndax nit moo moom la yàlla bindee ci doyadi day juum tey ëllëg mu defaru waaye moom fexe na rekk ba lépp lu mu warlook nit mu jë mu matal ci wàllam bu xawee manqué sax dina fexe nu mu koy dabaatal donte du manqué. waaw xam nga booloo yàlla moo ko njëkk a digle ndax yàlla sunu borom moo ñu digal waxtasimu bi xab xablillahi jamian wala tafarraqu ngooy leen ci sama buum bi te bu leen tàqalikoo buum bi nag du dara lu dul rasulullah sallallahu alayhi mag ñi fi nekk. ci réew mi seen njaboot nekk fii ñoom ñépp yonent bi lañuy liggéeyal ndax ñoom lañu sonnee woon démb barke bi fekkewuñu ko ndax amu kenn ci ñoom amu ci woon étage waaye tey sëtam bi gëna ndaw mu ngi ci am étage nit nag loo naan oto lu mu xat-xat nuyul ma diw xaj na ci nit nag boo amee dara ci barkeem da ngay fexe ba liggéeyam boobu nga perpétuer ko ñoom ñoom nag ndax daa nga dégg seen cheikh naan mag ñi seen dundu leer la woon génération bi ci topp barkeloo ba ca topp kufre lay doon après nag rebelote fu mel ni ci loolu lañ toll ndax jamono mooy yàqoo noonu waaye ñoom moom nga gis ni ni mu fexe woon ba jox boppam may boppam diine moo xam mu mag la walla nga mag ko xaarul loolu boo ko boo ko fu mu dégg ne fii war na fa mën a am yiwu yàlla rek mu jug dem te du tàggoo daan na jug rekk daal di yegg Tuuba ku ne dégg na waxtaan yi mu fa def liqaamal Sëriñ Abdul Qadir Mbàkke mu jiite ko julli kàddu yamu fa sànni daan na def noonu yoof ba ci euh, archevêque waaw daan na jóge fii yëpp oto ay fromage ak nangam ak nangam dem ba ca kër euh, monseigneur ba daal di ko ne ah tey sa mbokkutu tukulóor mooy seet si mbokk séréer daal di daal di koy teral daal di daal di dem nga xam ni yooyu bu ñu ko toppoon Euh, ndax kaas yee wuute rek waaye ku yeewu naan ku yeewu naan yow nag boo añee maafe ne tey man rek maa añ kenn añul da ngay nax sa bopp ndax am na keneen ku añee leneen waaye looloo ko gënal ba ko si te bëggee la nga am du tee nag bu ñu tasee ci pénc mi ku ne ñu saafonte def lu ñu diine sant bu ñu delloo ci biir kër yi ñu bëggee ku ne la la sa maam bàyyil ndax waaye teewul rek loolu yëpp loolu yëpp di ndoonoog Seyduna Muhammad ndax ñoom dañu fexe lépp lu yonent bi liggéey wala mu wax ko wala mu jëfee ko ñu fexe tënkal ñu ko moo xam ci way la ngir mu gën a yomb ñu takk ko ba pare ci jëf la moom nga dégg ci Alxaaji Malik naan lépp lu yàlla tere kenn musoo leen ma ci gis waaye lu mu lu mu santaane def na kéem kàntan ngeen gis ba pare bind naa bàyyi fi xam nga kooku tëj na buntu sos ci ginnaaw wane na leen ni fii laa teg sama tànk ba jóge fi moo tax muy wane ni muy wax ni ci xalaas zahab ah bëgg maa la bëgg boo xam ni àndul ak dara mbëggeel googu ah, signifiewul dara ba nit boo ko nee sopp waaw wa taabi an sunnatal muxtaari yonent bi boo ne sopp naa ko dangay ngay xenc sunnaam ndax loolu la cofeel di jëriñ ñoom moom nag mu fexe rek jox boppam diine waaw disponible ci ñépp ndax dégg naa ci benn dafa am xale bu ko ziyaar si ak ànd ak juram bi mu ñëwee jur bi ñu ziyaarante ba muy ñibbi xale bi ne ko ah maam suba damay anniversaire na nga ñëw de mu ne ko incha allah ca ëllëg sa rekk xale yi toog di anniversaire ñu dégg ku sone ubbi bunt bi muy moom te xale bu ndaw mu toog bëggee ak ñoom tuuti daal jóg dem dindiwul dara ci sa garaat ndax gis nga avion buy naaw danga naan lee ko tuuti waaye bu nekkee ci pist bi rekk nga gis na mu réyee yàlla nag noonu la mel boo yéegee rek tuuti ci moom waaye boo wàccee rek mu réyal loolu nag lay fex ba nga dégg doom doomam benn doomam nan moom kenn suulu ko ci bàmmeel ci xolu nit ñi lañ ko suul moo ngay waral réew mi ñi fi faatu bëri na waaye 14 septembre 25 mars bu jotee ruux yi ñooy yëg ni am na lu xewoon bés bi yaa 23 ans xol yi yëg ko te te soo laajul te laajul dara waaye boroom dafa fexe woon rek ba seey ci xolu nit ñi disponible ci ñépp waaw jullit la woon piir au vrai sens du mot euh, soppe yonent bi la woon ci ni mu ni mu gën a fëse ndax wax na ko ci wayam inna xubba nabi qaala talahmi wa idaami wa damma duuna riyaa yi mu ne li ma soppee yonent bi sallallahu alayhi dafa dem ba jaxasoog sama yàpp jaxasoo sama suux jaxasoog sama sama siditi ba ba mënoo ñu séparer waaye mu fexe nag jëfe loolu mooy cofeel bi ma doon wax beneen bi moo doon mooy citoyen la woon waaw citoyen mooy lépp loo xamante ni jullit bi war na ko watan minal iman warloo ko ci digganteem ak sociétéem moo xam liggéey la moo xam sànni ji carte la moo xam euh, wax bu wax jotee lu mu mën a doon ndax dama lay jox benn firndeel rek këram gi ci avenue Blaise Diagne kër gi kër gu yaatu woon la waaye bi ñu bëggee yokk tali bi moom moo njëkk a ci Médina daa di ne day xaaj këram ngir tali bi bañ fa jaar jaar fa ñëpp toppandoo ko kooku ci bëgg sa réew la bokk ci yeneen ak yeneen mu wane ko yoo xamante ni mënoon nañ ko lim fii waaye rek tabarakallah loolu daal jullit la woon soppe yonent bi la woon maanaam model bi waaw ndax laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun xasana waaw waaye nag boo demee ba ci biir euh, minal muminina rijalun sadaquma waaye nga demaat ba ci biir mu ne wama baddalu tabdila ñi nga xamante ni soppiwuñu soppeekuwuñu waaw kooku daal yooyu la incarné ba jóge fi moo tax ba léegi ñu koy fàttalikoo noonu euh, yàlla na nu ko yàlla fayal